salaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkku bu baax ngeen di nu ñaanal di am mbégte ak kontaan di ci ànd biir ànd ak ñun ci a suñ farlu du tàyyi mukk du bàyyi mukk ci seeti leen koo xam ne que njëriñ lañ ci seentu di ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci jël gan goo xam ne mi ngi ci jurbel kum neex nga ne njaarim njaarim ak jurbel nag benn lan mene na ko ba mu dëgër mu teel boppam kooko di kan sëriñ Babacar Tandian sëriñ Babacar Tandian yow turu sel ak sant woo xam ne que santu ñaan la kon sëñ Babacar Tandian ci Tektal TV buñ ko invité ba pare ci yéen xam ba xam yeex na fee jaar wala war na fee dëkke jaar wala waratu fi jaar wala war na fi jaar ndànk-ndànk yéen ñi muy jëflanteel atte bi foofu la sëñ Babacar Tandian yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission looy nuyoog àdduna wërngal képp bi lay seetaan. aoudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi alhamdulillahi lazi la yablugu midhatuhu qailun wala yuxsi namaahu laadun allazi la yudrikuhu badu lhimami wala yanaaluhu gawsu lfitani allazi laysa li sifati xaddun mahdudun wala naxtun mawjudun wala waxtun mawjud yàlla daal fa tara alxalaayiqa bi qudratihi wa nasara riyaha bi raxmatihi wa wattadda bi suquri maydaani ardihi izan yaani izan awalu diini maarifa kamaalu maarifa tasdiqu bi wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina muhammadin xaatimi lanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu cheikh ak équipe bi nga àndal yëpp ci Tektal TV ñi ngi lay delloo nuyoo bi ñi ngi ñaan ci yàlla yàlla na yàlla defal ñu wiwu ziyaara salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu maaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Babacar euh, Tandian léegi bu la doon laaj fi nga nekk ci Jurbel fi nga nekk ci njaareem boo ko doon tegtal nit sans mu wuyu téléphone ñëwal boppam nu muy def. Euh, njaareem boo ñëwee ba ci garaasu gaynde boo laajtee fan mooy Madina Tandian wala sañcaanu Serigne Aji Mohamed Tandian dëkk bi suñu woy jur ko sañc hmm. ñi fi dëkk ñëpp ay njabootam lañ. Hmm. waaw boo laajtee Madina Tandian wala sañcaanu Serigne Aji Mohamed Tandian rek ñu andi Mhm. mais kuy ñëw tamit mu woolal Dakar tamit léeg-léeg da ngay dem téléphone bi daal mooy lu leer. waaw waaw waaw téléphone bi moom daa iman mi ngi ak ñun. kon numéro baa ngi noonu ci écran bi ah bu baax a baax a baax ngeen jël ko léegi sëñ Babacar Tandian ñu bëgg xam nag wàllum faj ak ñaan yow da ngaa gis ñëpp dugg ci nga ne xaar nga dugg ci wala loo dond la wala loo jàng la wala lu la yàlla may la wala aw fit la wala da ngay wut xaalis wala da ngaa gis ñëpp faj nga bëgg a faj te yàlla tax. lan moo war a daal nga sañ jàkkaarloog man di wax assurance bi lan la. waaye Cheikh yàlla dafa dogal ñun suñu famille bi ñu bokk muy famille Maalaji Mbacke Tandiang euh, baaxoo nañu lii sama maam Maalaji moodu Tandiang daf ko daan euh, daf ko daan daf ko daan def di ci dimbali doomu aadama yi. sama woy jur itam daana ko def bu dee ci suñu wàllu ñun askan wi rek boolewuñu ci ndax loolu dama koy faral di wax damay wax ma nit judd yor askan rek ne damaa dond lii loolu doyul yàlla sax wax na ci alquran fa iza nufiqa fi suur bis boobu wala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun nee na ëllëg yowmal xiyaam bu ñu xasee ba wal buftu bi nee na man laajatuma askan kon dama wax ma ne askan doyul dama dama li li ëpp solo ci moom mooy ginnaaw ba nga juddoo ay nit ñu baax indi la nga gañe jamono ngay dem nga gëstu ji nga topp seen ay njeexital parce que xataa ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax gisuñu ko mais dañuy jéem a roy ay njeexitalam waaw donc ñi ñu fi indi suñu jur yi ñu boolee ñu ñëw gane àdduna bi ñu ñëwee ci lu leen fekk dëgg-dëgg suñ kemt dayo kàttan lool lool lool la ñu nekkoon di di di di di topp ci seen ay tànk ba fii ñu toll tey ñu toll ko fi kon am nga ndono am nga jàng am nga gëstu waaw fa ila alhamdu wal minna ñu ngi ciy sant yàlla bu baax allah wàllum faj ak ñaan mosu ci lor nit déedéet mësuma ci lor nit de dëgg-dëgg te defe naa sama waxtaan ci wàllu média moo bëriwul mais yàgg naa ci nag waaw. kon bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro yi baa ngi noonu ah euh, naa la ci dolli beneen beneen bi dama ko këruwul quoi bii rek laa jàpp dafa 78 126 97 10 78 126 97 10. 78 nag waxuma la 77 78 laa la wax 126 97 10 78 126 yow mën a bind 97 9 ak 7 la pour ku déggul daaj 10 1 ak 0 rek kon numéro bi am na whatsapp nga diis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te mën na lépp yow mi nekk Sénégal insisté rek nga woote appel normal ki nekk bitim réew tam bu mënul jotee mu dem ci whatsapp bi ko defal audio 10 nag Euh, da nga koy tënkal rek sa dund yëpp xajul ci kii bi ngeen jàll ci leneen boo ko audio mu yeex a tontu ñi mu wax la bari nga dolliwaat rek sa kii nekk ci kaw bu baax a baax a baax sëñ Babacar Tandian léegi nag ñu ñëw ci wàllum euh, Sénégal fii mu toll nii gis nañ ne ab sëriñ sax léegi bu waxee ba pare ak lum mu jub jub jub ñu jubadi ñi dina waral wóolu gën ko wóolu des euh, ba léegi nit ñi dañuy xel ñaar ci sëriñ bu léeg-léeg ñu tooñ sëriñ léeg-léeg sëriñ tooñ leen ndax bu la junni sëriñ loree wala ñu wax la lu dul dëgg ki nga xamagul moom loo ko wax tooñ ko léegi nan lan mën a xàmmee sëriñ bu jaar yoon ci image wax nii mu leer rek ci buñ ko boo ko doon jox ay takk nan nga doon ko mën a xàmmee sëriñ bu jaar yoon ak bu jaarul yoon tayib cheikh man de li ma jaab li ma jàpp man mooy nit boo nee ci domaine bii ci laay yëngu mm. na nga fexe nga mën ci convaincre nit ci kaddu boo nee ci alquran laay yëngu na nga fexe ba alxuraan ji ngay wax nit ñi niñ ko mën a nit ñi mën ko dégg xam ne lii ngay wax dëgg la benn beneen bi ci topp itam gis nga nit lépp lu muy dund wala mu ne ci bu ci jiitalut suñu borom mbir ma ci ak ndëng-dëngate rek ci la daal mën dégg sëriñ bu mënul bind alxuraan bu leer ñu moytu ko bu dee wuyoo sëriñ waaw boo ne boo nee ci alxuraan laay jëfandikoo ah, waaw waaw nañ la moytu hmm, bu dee sunguf la nag moom bu dee sunguf ak ren moom mën nga dem jàng ko nga gëstu ko ñu lii doos sàngam nangam la doos sàngam nangam waaye kanta bu dee ci alquranul karim comme ni mu xewee léegi nga xam ne da nga naan ci alquran lay yëngu ci laay faj te aaye bu dëgër sax mënuloo ko wax man mais me na ñoom mokkal alquran tamit te duñ mën a faj soxla de loolu tamit wala beneen mbir la xam nga daara ja fi mu ne bërëbu jàng la mais du bërëbu xam-xam nit dañ lay yóbbu daara ja ngir nga jàngi boo jugee ci daara ja nag ci ngay soog a gëstu ji xam-xam léegi-léeg ceex yow mi nekk donga daara sax nga taseeg nit ci àll bi ngeen di waxtaan nga xam ne kii am na xam-xam te jaarul daara mm. parce que daf ko gëstu waaw dañu wax ñu ne xam-xam ci dund góor yàlla yi la nekk mais nekkul ci téere yi. léegi nag mu des nag ci côté sell hmm. dañuy gis sëriñ soo xam ne que bu am maanaam dinañ wax lu dul dëgg. Hmm. dinañ lekk lu lewul. Hmm. Euh, dinañ jël xaalisu nit bloqué ko. kooku maanaam loolu day wàññi xam-xam wala yàqul dara xam-xam. day wàññi xam-xam xam nga imaam Shafii bokk na ci ñi am ngir. imaam Shafii dafa wax mu ne shakawtu ila wakiin su a xifzi dafa wax mu ne dafa am bis sama sëriñ bi ma daan jàngal man imam Shafii yi ngand la ci borom xam-xam yi la bokk ndax ngir yi Malik la Shafii Abu Hanbal Abu Hanifata imam Shafii yi ci borom ngir yi la bokk mu ne dafa am bis ma ñëw ci sëriñ bi ma doon jàngal Waqii la tuddoon nee na ma ñëw ma ne ko man de dama seetlu na fan yi li ma daan jàng di ko mokkal dafa wàññeeku léeg-léeg sax dinaay jël darsu ma sonn ci mais mënuma koo mokkal mais xam nga sëriñ bi na la ko wax dana ko da ngaa mooy yàlla koy jëfandikoo faaw nga bàyyi ko pour wax na ne cheikh mooy yàlla mënul ànd ak lu sell beneen bi ci topp itam gis nga nit boo nekkee ci kaw suuf di dun dafa am lu tax kon sëriñ bu bëgg jigéen ñu moytu ko daal waaw ah, loolu moom musiba la kooku moom dëgg dëgg musiba la parce que sellal moo jiitu ci mbir hmm. yàlla sax nee na ci alquran wa ma umiru illa li yabudullah waaye doyu ci daf ca teg mu ne muxlisiina lahu diina léegi dafa am tamit foofu tamit problème dina fa am de hmm. bu dee sëriñ si booba en manière générale rek laa ci nit côté sellal mm. dafa am ñoo xam ne que man nan maandu dañuy takk rek mm. mais bu ñu takk mm. ñoo la gën a leer ne Qatar mu dem coupe di monde bu ko bu loon organiser du ci bokk ñoom xam nan ne takk nan mais kumpa la ni dindi rek mais lii du wéy maanaam du kun leen di ñaanal njaboot gu barkeel moom sëy boobu maanaam tamit bu dee kilifa day def loolu takk fii bàyyi takkaat fale bàyyi ñaar tamit mën na ci mën naa mu jàppee lépp lu baax. ba bu duggee gis ne baaxul mu génnaat mën tamit mu kii ci indi ci ay lor. ci wàllu takk soxna. waaw wàllum takk soxna. tayib xam nga xam nga fi mu ne dafa am loo xamante ni noonu la àdduna lay taayoo woon min mi zaman li jiito ay jamono. dañu wax ñu ne soxna. ak kër. ak waruwaay yii la mag ñi yemale woon. dañ ci doon yi def yitte pour bala ñu ciy dugg ba xam ci li ñuy dugg lan la. parce que nekkul loo xam ne dalay neex tey nga dugg ci suba nga génn ci. Hmm. parce que yii euh, surtout soxna nag moom jaamu yàlla la te jaamu yàlla bu neex amu ci. Hmm. amul bu neex léegi nag daf ci am loo xamante ne nii ak caay-caay goo ne dafa lalu ci seen biir. Hmm. xam nga daf ci bëri sëy yoo xam ne intérêt ko waral. te léegi nag mbir moom bu fekkee intérêt moo ko waral boo dee ba gisatoo ci intérêt ji rek da nga ciy daal di bëgg a génn wala ayaazu billah. waaw moo tax ma mais moom li muy def xam na na sëy bii moom du lay wéy quoi lool loraate la de. ah waaw bu baax sax. Hmm. kooku kooku. yooyu mu mën na xañ ñaan mu nangu wala. a ah, bu baax. bu baax bu baax sax. déggoo may rek fépp ak mooy yàlla am rek foofu ak ñaan yàlla mu jógee fa mu ngi ci wet ga. Hmm. léeg-léeg sëñ bi ne ah maa ngi fii maa ngi dugal sa bagage yi nangam nangam di di kii fekk li mu wax du dëgg loolu tamit da koy xañ dara. bu sax dafa am benn borom xam-xam mi ngi ci mursil mu nekk xiibatin namimatin zurin kazib waaye nag lisaanuhu arabi tarki maa julib dafa am yoo xamante ne nii même bu ñu génnee ci cadre yàlla sax mais dafay dafay dafay dafay dafay wàññi crédibilité sa diggante ak nit ñi muy fen mm. baaxul mm. waaw te te nit boo ko fenee rek tas nga yaakaaram te tas yaakaar dafa baaxul te tas yaakaar baaxul waaw fen day wàññi maxaama nit ki daal waaw sëriñ buy wax lu dul dëgg moytu leen ko sëriñ buy lekk lu lewul xanaa buy bokk ak doomam yu ndaw yi mu leer lii muy lekk dafa dafa lor benn pap bu nekk ca Espagne wala benn muudu bu nekk ca Italie toog di lekk nii bloqué ko pare jël loolu joxe ci dépense toog lekk ak njabootam loolu sa xel di dal loolu ñaaw na sëriñ bu ci wàcc deuxième division yaa ko teg sa bopp ku koy teg ci yoon li ngay liggéey sa sa njaboot dina ko aw ku jàppe ne sëriñu 2022 2023 nga nag profité nga def la neex te xam ne dangay wàcc mm. am na sëriñ su ma doon invité gisatuma leen fenn te xam naa ne nan meloon bu njëkk mënatuñ ko mel loolu yi li ko indi ci seen doxalin la man nag am na ñoo xam ku leen jox milliard duñ toog a teg man ndax am na dëgg gun war a teg fii te du ma du ma leen ci bàyyi te ñemewuñ ko bu ma ñëwee dinaa leen ko yàqal kuy teg ci yoon ñu ànd dem ku tegul ci yoon nag sori ma yàlla bu ma la xam sax bu baax a baax kuy jariñ nit ñi lan bëgg te doo lor nit ñi léegi nag nit ñi dina loru di lorante ci wàttu wàllum xeetu kort ak xeetu liggéey nit ba mu démissionné te gën fa muy liggéeyee liggéey nit ba mel na xattal ko liggéey nit ba mu def lu dul yoon xeetu ku bëgg protection kaaraange bu wóor ak njabootam nga xam ku ko laal xam ne laal na laalaake boobu noo ko mën a defal nit ki. tayib li nga wax moo wér. xam nga yii xam-xam. Cheikh Taalif la ñuy wax de tayib soose nga bëgg a jox ah. <laughs> tayib da baal ma bi ma génnee ci naari ci laa ko tàmmee moo la waaw xeetu wax la ci ñoom. tayib ok may nuy tayib soose sama xarit. dafa am loo xamante ne nii moo xew ci pinc mi te li ko fi indi muy ay saay-saay yoo xamante ne li jiitu woon la woon ñu leen di wax ay ay shayatinul jinni yooyu xam-xam yu ñuul yu bon ñoo ko daan def léegi nag cheikh pour wax la ne xam-xam doole jim am li nekkoon ci malaayka yu sell yi mi ngi rogalaat ba ci ay nit ñu dond ko hmm. du ko jëfandikoo li nekkoon ci jinne yi nga xam ne ay seytaane la woon ba léegi mi ngi ci ay nit ñu jëfandi ñu di ko jëfandikoo hmm. léegi nag li ñuy wax kortu li ñuy wax na yi nga xam ne dafa mën a yàqal doomu aadama dafa bëri Mm-hmm. solution bi kay laa wax ndax mën nga ci dara. ah kay bu baax. solution bi mi ngi ci biir alquran. yàlla nee na maa farat naa fi kitaab min shay'in. Mm-hmm. waaw loolu moom mbir yoo xamante ni ku yàlla dogal ñu buñ ci jëfan jëflante du yàgg sax nag. Ah. dangay tudd jour ay jour wala doo jàpp jour. waaw ku ma ci ku ma ci ku ma ci xool say mbir ba xam fi mu toll moo jàppal ay bis. Mm-hmm. waaw. Ah, maanaam diggante bi moom fu ko neex day mucci ci accident yi mucc ci loraange yi mucc ci yi mucci yëpp. bu baax même ñi nekk ci banque yi sax ñu di leen signaler loo xam tey ñu ko bun amee nga defal leen kaaraange bu wóor. bu baax du yàgg. Hmm. lépp day dem. ah ku nekk ci entreprise boo xam di ay tubaab ba fa nekk tubaab bi bëgguñu ko mu ñuul nar a féete kaw ñu koy xañi point yëpp ci kaaraange boobu nga koy dugal. waaw dëgg-dëgg loolu moom sax nag dafa bëri loo xamante ne nii dañ ciy jëflanteek ay nit ci wàll wu mel noonu. Hmm. waaw ci wàll ñi nga xamante ne ni ñu ngi ci àll bi. yu mel noonu daf leen di bëri lu mu leen hmm. parce que li ñuy wax racisme day digg day dugg seen diggante mais loolu solution daf ci am bu baax a baax nag wax dëgg yàlla fay la alhamdu wal minna hmm, di nga fexe daal ñu teg leen ci kaw. bu baax. Euh, côté kaaraange tamit di leen wax lenn am na ñoo xam ne am nan alal kaaraange du kaaraange nit kese de kaaraange yow sa bopp ak kaaraange sa alal ak kaaraange sa njaboot ndax nag ñi li ci yéen sëriñ si léeg-léeg ngeen am problème boo xam ne que nit day yor lu ne. du tal kaaraange du tal aar njabootam du tal aar alalam bu demee ba ñàkk ko nag ba mat yërëm nag wut si leen boobaa nag nga xam ne que du neex dimbali quoi du neex te lu mel noonu buñ ci nekkee du leen ko jaral kon heure bi nga amee ngay farlu ci sa jëmm ak sa alal ak sa njaboot pour kii ko ba doo jox nit ki ay sangatu 40 jours jëmale déwén rek wala. déedéet nag man sama cangat defe naa bi ci gën a yàgg juróom-ñaari fan la. sept jours waaw. Mm-hmm. bi ci gën a yàgg. waaw sept jours la moom lay diire. Mm-hmm. waaw sama cangat yi may faral di joxe yëpp. sama cangat du dem ba ay 15 jours wala nangam nangam. lan ngay wax ci sëriñ si nga xam dañ naan nag ah faaw nga gëm pour mu soog a baax tax gis na ne pétrole. bu ne laa bokk naa ne am problème boo ko gëmee boo ko gëmul yëpp bokk naa ne di am problème sëriñ si lan moo tax parfois tamit ñu jox nit ki encaissé xaalis ba pare naan la ah da war a gëm nag yow moom tamit euh, gëmul quoi mu mel ne bu gëmul du baax ma yaakaar ne sa aaya yu nit ki moo war a feeñ pas gëmu nit ki. loolu moo wér nit ki bu fekkee li ngay li ngay li ngay def moo jaar yoon. par exemple ma joxe ko ci misaal ci am mécanicien. boo ko waxee ne ko sama sama oto bi panne sangam la am. bu ko mënee danaan la ñëwal boo ñëwee balaa heure nangam ma dindil la ko parce que day xam ne lii mën na ko mais li nga mënul nag boo ci nekkul mooy waral tatone ji waaw ah kon da ngay war a gëm pour mu soog a nangu loolu du dëgëru ay tatone la tatone la waaw dëgg dëgg parce li doon defi sax mooy nit ki gëmu la nga won li tax gëmuma la fekk nga fi xam-xam ba mu la waaw ah, fekk fi loo xam ne dina dem mu doon sa avocat buy wax ah. Ah? daal yow ku ñëw nga defal ko protection bu wóor waaw wax dëgg yàlla Hmm. incha allah ku bëgg a aaru kon kaaraange léegi nag nit ki léeg-léeg bu amee kaaraange pare am ñoo xam ne dañ naan yenn kaaraange yi tul da ko ci boole sa kaaraange wala. waaw man damay damay damay liggéey tul ba ci tulu fetal bii dama koy liggéey. tulu fetal ah bon. la fu ñu essayé ci xar nga leen essayé wala ci bëy. da nga wala nga takkal ko nag wala nga takkal ko lu la hmm. am na kuy wax man temps yee benn sëriñ bu siiw bu ma doon invité def dafa am gàllaaj yu mu ko joxoon ne ko jaaral Maroc jaar ci frontière bi dem Espagne sa waay sa waay am fit dem jaar foo xam ne que dafa war a nëbbutu mais mu gëm gàllaaj yi dem mais tëj nañ ko six mois kaso mu génn di dal ci kaw sëriñ bi rek di ma wax lu ne ma ne ko nag man. kooku de na xanaa ki ñu naan da war a gëm affaire bi. <laughs> waaw waaw moom di gëmoon na gis nga li nga man ma sama gis benn sam benn xaritu boxeur mu dem ci benn sëriñ. ñu ne ko dañ lay na loxo bi defal la ci téere ma ne ko lii d'accord ma ci mu wax mu gëm sëriñ ba ma ne ko man daa sa ay lii d'accord ba ci wax ko dëgg ki man moom damay demee logique quoi moo tax euh, il fallait que nit ki ngeen di bàyyi xel bu baax a baax a baax bañ a loraati daal mais bu ñu génnee ci côté boobu damay ñëw ci nag côté kaaraange génn nañ ci noonu mais ko am kaaraange ba pare comme nee na nga def di nga def tul tulu kaaraange laa bëggoon wax mais tul dañ ne day umaate wala du umaate sa bos déedéet dafa am tul yoo xamante ne nii xam nga fi mu ne gàllaaj dafa bari ay façon numéro ci ko soxla daf ci am tul yoo xamante ne nii fi ne boo waree génn ay njaq la danga koy naan yooyu vingt quatre heures lay diire du def kenn dara yooyu du def kenn dara dëgg la nag fi mu ne fi mu dool fi mu toll nii ba ci gis nga kaaraange gi ngay gis nii kaaraange léeg-léeg nit liggéey ko yoon woo xamante ne dina la dina la armé daf lay mujjee tëj daf waaw day am euh, mais nit ki mënul jël kaaraange bu bu dëgër ba pare teg ci ak ubbeeku ah kay parce que loo gis ci àdduna yoon la nit dafa am dafa am dafa am dafa am ci tabian yoo xamante ni ci la suñ borom bind doomu aadama léegi tabian yooyu nag day am lu ñuy accepté ak lu dul accepté léegi pour nga xam tabian yi lan la ñuy accepté da ngay da ngay da xam li borom xam-xam yi tuddee ilmul falak wala ñenn ñi di ko tuddee ilmul nujum muy xam-xamu biddiw boo demee ba xam ko waaw boo demee ba xam loolu ci ngay ci ngay ci ngay soog a mën a xam fan ngay jaar ba liggéey doomu adama bi lii lii la yaramam soxla fi mu ne Cheikh mi ngi mel ni garab yi nit ñi di naan hmm. ab bu yéesee du la faj bu ëppee du la faj waaw te man la indil jafe-jafe da lay indil jafe-jafe hmm. moo tax dangay xam ne kii kii yaramu doomu adama bi exact lii la soxla dimension bii la soxla ci wàllu mystique nga joxoon jeex na kon ku bëgg ubbeeku nag am bayra bu saf sap parce que ñàkk bayra mooy waral ngay ñëw naan maa ngi ñëw ñàkk bayra mooy waral nga naan may leen ma toog am bayra mooy waral ñu may leen ko mu toog am bayra mooy waral ñu naan mi ngi ñëw bëgg bayra bu saf sap nga xam na que nag euh, dañ koy tudd ci jàmm ak salaam daal te mbiram di dox bu baax. tayib euh, fathul mubin fathul qarib fathul akbar mag ñi dañ ko daan liggéey ci ay ci ay ay ci ay ci ay mbir yu bokkul. parce que fi mu toll nii dem na sax ba ci ba ci nga yegg sax même buñ la joxoon rendez-vous da ngay ñëw fekk ñu tëj bunt bi. te heure wàcc jotut. day am gis nga nit day am loo xamante ni di bu xasee ba nekk ci yaram mag ñi waaw dañ daan dañ daan jëflante ak yow ne nit. dafa am loo xam ne yaram wu taq wala ñu ne bool bu takk kenn du ci def lu ñuy ñam ñam bu nit di jëfandikoo hmm. waaw dañ koy raxas ba noppi soog di ci def ñam bu nit di jëfandikoo ñoom Mbappé ñoom yaram bi dafa set wala Mbappé jour yi waaw waaw dëgg-dëgg man awma ci ñoom xam-xam ndax musuma jëflante ak ñoom damaa dégg ñu ne yaram wu taq parce que maa gis ne ñoom xam naa ne mokkalun fàtte moom loolu moom ku ma tegal kaamil ma waat ko xam naa ne tamit gëmma ne dina jàpp ah xuma yaram bi set na xuma tilim ne daal mais ñu ngi koy tudd fu vingt quatre ans la am téye na coupe du monde ah dem na final Ligue des champions te fii dañuy gis nag li sëriñ même ci wàllum sëriñ ñii boo amee xam-xam ñoo di xaar ba ma am 40 ans rek ci laay wane sama bopp ah am xale ñu ne nëbbutul nëbbutul naan cat ñoom nag faalewul yooyu gaa lu tax tamit loolu. gis nga Cheikh dafa am loo xamante ne nii yàggul maa ngi koy waxtaanee ak sama benn wóllëre mooy dafa am dafa am philosophie yoo xamante ne nii faaw ñu jëlee ko ci réew mi. Hmm. karaw gu ñuul ñàkkul dara. <laughs> man loolu ànduma ci. ak waaw njëriñ loo fekkee man loolu ànduma ci hmm. tollugoo fooy am bay ñàkk man loolu ànduma ci dina waaw yooyu xam nga sottiwul yooyu aada moo koy indi ci réew mi hmm. maanaam topp la di la muñ loo ba nga yegg foo xamante ne nii nag dëgg-dëgg musiba dalay dalay dalay daal di far daal <laughs> waaw loolu moom loolu dafa gënul hmm. moo tax gis nga nit dafa am loo xam ne ci àdduna pas-pas ak yitte ak dayo foo yegg ci àdduna moo la fay yeggale donc nit dangay ngay toll foo xamante ni ci àdduna day yoo xam ne ay responsabilité da ngay nangu pour nga téye ci sa loxo nag léegi na nga ñafe nag pour yi nekk sa kanam mu mën a yegsi waaw mais na jaar ci yoon nag mais waaw yaram mu set kon nu demee parce que gars yi da nga gis ne jigéen ñi bu amee xaalis delluwaat maanaam te ñee nga xam ne que moom taluñu sango yooyu yëpp ñu ngi waaw xam nga fi mu toll dafa am loo xam ne boo koy waxtaanee faaw nga tënk ko ci diine ji nga bokk ma jox la benn exemple tey oto oto essence boo ci defee gasoil du dem du dem waaw day indi problème te fi mu ne faaw nga gaare o jël moteur bi raxas ko ba mu set pour nga mun ci defaat bi pour nga mun ci def essence pour mu mun a pour mu mun a soog a continuer fonctionner. mais am na ñoo xam daanaka trop jullit la yor rek mais duñ julli duñ def dara tamit dañu juddu ci jullit gi rek mais buñ gëjee julli kenn xamu kañ la. waaw loolu moom wér na mi ngi ci réew mi bëri na fi lool mais nag xam nga teewul itam suñu borom nekk ku bëri yërmande. waaw suñ borom mi ngi fi rek moom heure boo soxlaa. almaa ngi ci solution yi léegi li mu bëgg kon ku bëgg bay na bu saf saf bu ñëwee nga bu baax sax. benn bu saf-saf ci lu dul yàgg sax nag incha allah hmm. joueur buy football ñëwoon ne la bëgg chaque match ma doon homme de match te damay doon titulaire bayre boobu mën nga ko déedéet ah, ma ko wax dëgg yàlla man masha allah bindal numéro bi bindal bu dee mënul bindal boppam pa maire mënul bindal boppam pa bi neexul keroog ci saal bu noppi numéro Serigne Babacar Tandian ci Diourbel léeg-léeg dina nekk Dakar mais jot ko ci whatsapp bi rek euh, wala appel normal fu mu nekk mu wax la 78 126 97 10 78 126 97 10 sëñ Babacar Tandian nekk ci tegtal Jurbel euh, ak Njaareem nga dis ko soxla mu man mu def ko leen ñu bàyyi yàlla mu xam tëlewul dara te mën na lépp commerçant bu daanu nag yëkkatiwaat ko mën nga ko. ah kay. waaw. Hmm. Ah. Ah, bu baax. déggoo déggoo olof ne bu ndox tuuroo an mbàq ci des. Hmm. mais dafa am ñu bañ. dañ ne rootiwaat moo fa sës. waaw ah, mais loolu. waaw amul njariñ loolu moo wér. Hmm. man am naa ci am naa ci am naa ci cas koo xamante ne nii euh, station la yoroon. damay bañ a tudd tur damay bañ a tudd tur ndax diplomatie waaw dafa dem dafa dafa demoon ba ay jamono mënatul xëy pour jaay benn cent mille franc bu mat problème la ci moom jafe-jafe la woon ci moom hmm? waaw. nga tijjaat ko ba mu yor ay station. waaw fi mu ne mi ngi sant bu baax nag. yoraat na bu baax. dëgg dëgg nag waa jàmbaar la ci ñun nag wax dëgg yàlla waaw. <laughs> dégg ngeen ko kon ku comme ku daanu bëgg a yëkkati ko ci lépp nag. sëriñ bu daanu nag mën nga ko yëkkatiwaat. ab sëriñ bu daanu. waaw ah kay. Ah. Ah, ah, waaw bu baax sax. déggoo dégg xam nga ci alxuraan fi mu ne. Mm-hmm. ci la suñ borom ne maa fekk kuréel daaneel leen ba jëriñoo cuñ dara. Mm-hmm. waaye maa fekk ab kuréel itam yëkkati leen ba foo di leen seet. Mm-hmm. mi ngi ci biir alxuraan. kon dégg ngeen ko ku daanu ci lu mu mën di doon rek mën na la yëkkatiwaat bu baax a baax ba nga jógaat dem ci kaw bu baax a baax sëñ Babacar Tandian. moo ko wax kon bayra ubbeeku nag da nga koy def. waaw ubbeeku mooy mooy fatxu waaw mooy bi ma doon waaw dañ koy dañ dañ koy liggéey dañuy liggéey wàllu waaw waaw wàllu càngat la nag waaw wàllu càngat la. wàllu càngat la waaw. na nga koy def bu baax bu baax sax dégg ngeen ko nee na ku bëgg ubbeeku léegi nag mu ñëw ci bi nga xam ne bii pour kilifa yi la nag euh, kilifa yu mag yi nga xam ne que nag moom da ngay tëj téléphone bi tëj yëpp doo tal kenn nekk ci seen mbir kese muy xalwatu xalwatu loolu moom xam naa nit koo koy defal dina ñaq dina ñoqi mm-hmm. mais mën ngay dugal nit xalwatu def garantie avant muy génn ne ko bu muy génn moom bal bi day tàkk wala. waaye Cheikh xalwa du caaxaan. Mhm. déedéet. du caaxaan déedéet. et yii nag ku doon gone gu ndaw nag nga maandu ci yi pour ponkal yi la ngeen ko maanaam bu ko neexee nag xalwatu nga xam ne nit ki moom day dem mu yoonam rek nga nga lijjanti ko mbiram. xalwa du caaxaan xalwa fi mu toll nii li nga koy gis nii. Mhm. boo yàlla dogalee la ca la jaadu ci ay sarax nga génne ko. ñu tëjul la. moo xam ñetti fan la moo xam juróom-ñaari fan la moo xam fukki fan ak juróom la am na yu dem ba weer bu jaaree yoon laa wax de dëgg-dëgg yow waroo waroo yem ak say maas nag déedéet waaw ah, xal ba moom dëgg-dëgg du caaxaan ngeen koy nga bañ ne lii moom bu la ci gone kii quoi maa ko jël yëkkati ko ci kaw bëggoo bëggoo xuusmaa ñàpp dugg ci ah waaw ko xalwatu maanaam boobu boo ko duggalee nit ki bu génnee lu mën di lijjanti moom bu doon senegal la bu soxla FIFA sax mën na ci jot ko bu soxla FIFA waaw waaw xam nga xalwa boo xasee ba dugal ko nit mm-hmm. moom moom moom ay rawxaan la mm-hmm. léegi nag rawaan moom mooy doon mooy li nga xamante ne nii euh, xam nga euh, rawxaan dafa bokk ci jinne yi nga xamante ni ci am doole ci la ñu bokk mm-hmm. am na benn turu jinne maa ngi koy tudd samharusin daa nga ko faral di ko dégg daan naa ko dégg samharusin xam nga samharusin génn na àdduna génn àdduna kañ samharusin gaa yi sant nañ <laughs> est-ce que yëg nañ ko ah yëguñu ko waaw xam nga fi mu ne samharusin boobu ngay gis nii dooy dégg benn dëkk bu ñuy wax ci Gàmbi gunjur waaw barabu ñaan la ni ñi dañ fay faral di dem xam nga lan moo ko indi ma la histoire bi Cheikh Omar Foutiyou Tall dafa dem Màkka jamono boobu mi ngi ci xare bi mm-hmm. bi mu nekkee ci digg aj gi mu gis Zam Harousin mu waxtaan ak moom ne ko ne ko na ñëw participer ci xare bi mu nekk parce que Zam Harousin boobu ngay gis mm-hmm. mu waxtaan ak moom mu ne ko man fi mu ne jëm naa mag parce que xare yonent bi mujjee xare man bokk naa ci xam nga jinne dafa mën a gudd fan mm-hmm. mu ne nag sama doom moo fi nekk fi mu toll nii doom ji turam bokk na ci tur yi nga xam ne fi ne moo téye ci wàllu li wax ay wàllu rawxaan ak wàllu nangam nangam. ku ah, ñi nag dañ koy nëbb nag. Ah. ñi ko xam. waaw. Ah, boo ko waxee def erreur. ah ñi ko xam dañ koy nëbb. ñu joxonte rendez-vous xam nga jinne yi fi mu ne ci ili la ñu dëkk. parce que ñun avant ñuy dëkk ci àdduna ñoom ñoo fi dëkkoon def mille ans. Mm-hmm. suñ borom teral gi mu teral doom aadama wala xadd karim naa bani bani wala xadd karam naa bani aadama mm-hmm. siiw na ci làmmiñu nit ñu bëri mokkal nañ ko mm-hmm. waroon nañ di ko jëfee nag comme ni mu waree teraanga gi teraanga euh, suñ borom teral doomu aadama moo tax jinne yi tuxu dem dëkk ci iili dooy dégg léeg-léeg ñu ne diw sàngam këram gi kat day tabax rek muy daanu parce que day tombeeg fi mu dëkk jinne jëla joo xamante ni moo fa dëkkoon joo xamante ni nekkul jinne ju gëm yàlla mooy waral léeg muy indi ay jafe-jafe ci kër googu hmm. mais yow moom ñeme nga jinne yëpp waaw man de sama maam da daan jëflanteeg jinne yi hmm. bu baax sax hmm. dëgg-dëgg jinne moom man aw maag problème kon yow ku la joxoon pale ñu ko kebe ne la sanc fa jëlal yaa moom da dem. déedéet du ma dem nag waa dafa am lu ko waral. dafa am dafa am dafa am ku ñuy wax na nga baal ma. jinne la ci jinne yi la bokk. Hmm. ci mag ñi la bokk. dafa am bis ma am mbokku taalibe. Hmm. ca Maroc ñu bokk doon dugg benn xalwa doon am lu ñuy liggéey. feeñuwuma sama mbokku taalibe boobu la feeñal wax ay mbir yu yéeme ca pale ba. pare njuga kebe ñu pare ñu bokkee ko waxtaan ma ne ko nag jamono toll na foo xamante ne nii du loo xam ngay wax ma ne ko kon nañ gas suul léegi ñu yeggale euh, Cheikh Omar Foutiyou Tall bi ko sam xarusin joxee joxee rendez-vous moo looloo looloo waroon nag muy topp jaar na fu ñuy wax euh, Casamance boo demee am na fa comme gunjur mm-hmm. mais gunjur la ñu gisante moog sam xarusin mm-hmm. léegi nag gunjur boobu ngay gis foofu la ko Zamxaru Siin boolee ak turu doomam bi nga xamante ne nii moo ko doon dimbale ci xare yi mu nekkoon moom Cheikh Omar Fouti doomam bi nga xam am na kàttan léegi ba léegi mooy xam ne am na kàttan waaw léegi nag loolu loo loo loo loolu moo waral gis nga jinne yi fii ne li ñu leen di gis nii suñu borom dafa séddale ne damaa jël li ñuy wax pexe ma jox ko doom aadama ma jël doole dénk ko malaayika yi waaye ma jël xam-xam dénk ko jinne yi moo tax jinne dafa bëri xam-xam waaw neexu ñoo jëflanteel moo tax léeg-léeg dafa am loo xamante ne nii boo ko tegee ci xel rek nga mu war a mun a dàqu mooy léeg-léeg da toog gis ku bën buusu ndoxam di sotti naan jinne yee ne wala mu tuur deret commencé nangam nangam jinne yee fi ne loolu ay caaxaan la waaw dëgg dëgg nag waaw loolu ay caaxaan la parce que jinne itam waroo toog yow doomu aadama bi di ko namoo moom moo wara war a namoo moo la war a namoo naan moom moo la war a namoo yëkkati ci kanam morom jinne nga ñëw fii moom moo la war a ndamoo dëgg dëgg nag mais du yow yaa war a toog di ndamoo jinne mm-hmm. jinne daal mais mën nga leen sant mission ñu defi ko. jinne yi noonu lañ fi nekkee comme ni ngay comme ni nga comme comme ni ñu yoree daara ji nii léeg-léeg nga nga ci benn xale ne ko defal ma nangam mu dem def ko. ah kon fi nekk yow tey bu Chelsea doon football Edouard Mendy saison bi yëpp mu sant la nga wax jinne ñu tëjal ko kaa yi moom dina def li ko war daal mais bu bal duggati. déedéet xam nga man sama sama sama jafe-jafe pire mooy yàlla daa dogal. man jëflante wu ak ay mbër ak ay jour. waaw ah. ah, man jëflante ak ñoom. déedéet dëgg dëgg nag. déedéet mais bu ngeen di jëflante bee. musuma jëflanteeg ñoom te du ma jëflanteeg ñoom. Mhm. waaw. musicien. waaw mbër. waaw jour. waaw du ma jëflante ak ñoom. ok li nga wax ñoom tamit ci pour ci ki askan wi lañ bokk de. Ah, xëy na suñu borom dina leen booleeg ñu mën a jëflanteel. Ah. waaye man moom jëflantewuma ak ñoom. Hmm. mais man nga tëji kan la babal dafa dugg. déedéet loolu yëpp ci wàllu ci wàllu. Ah, football la dëgg dëgg. <laughs> <laughs>